Mark sar am beneen bis Yeesu duggaat ci jàngu bi fekk amoon na fa nit ku loxoom làggi am na fa nag ay pharisien ñuy xool Yeesu ba xam dina ko faj ci bésu noflaay bi ba man koo tuumaal Yeesu ni ki loxoom làggi jógal taxaw ci kanamu ñépp noonu yéesu ne leen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 daldi gise ak ni far ak buur bi erod ngir fexe ko reylu ginnaaw loolu yeesu ak ay taalibeem jóge fa jëm dex ka fekk mbooloo mu mag mu jóge diwaanu galile topp ko te it nit ñu bari dégg la mu def ñu ñëw fi moom jóge yu yude ak dëkku yerusalem ca diwaanu idime ca ginnaaw dexu yordaan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 fukk ak ñaar ñii la tànn simon mi mu tudde piyeer saak doomu sebede ak yowaana mi mu bokkal ndey ak baay ñoom ñi ñu wooye booba narses maanaam ñi aytal ni dënnu gi andre ak filip bartelemi ak màcc toomaa ak sak doomu alfe tade ak simon mi bokk ca mbooloo ma ñu tudde ni farlu ci moom seen réew ak yuda iskariyo mi nara wor yeesu am beneen bis yeesu ñëwaat ca kër ga te mbooloo mu bari dajalawaat fa ba tax mënuñoo lekk sax bi ko ay mbokkam déggee nag ñu ñëw ngir jàpp si ko naan dafa tàggoo ak sagoom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 xàjjali ko dikkal na ko te du mën a yàgg waaye dina tas su fi amee nit ku bari doole naka la kenn mën a dugge ci këram nangu alalam xanaa dafay jëkk yeew ku bari doole ka ba noppi door toj këram gépp ci dëgg maa ngi leen koy wax lépp des na ko baal nit ñi muy bàkkaar